يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون تنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله Allah. Oh,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 magal juddug yunan bi sallallahu alayhi wa sallam wala bok magal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax gamu gamu turu olof la way lu min rek muy magal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la miin te loolu nag alquran moko santane yàlla waxna ci alquran ne fal lasina amanu bihi وحسروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون نينا ñépp ñi nga xam ne gëm nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko ba pare dimbali ko màggal ko wallazina amanu bihi wa hasaruhu ñu màggal ko ba pare dimbali ko màggal ko nag muy fonk ko muy tagg ko muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yépp ci màggal ko la bokk kon ñoo la wax ne ulaayika humul muflihun mu ni ñoom rek ñoo texe bo jàngee bayaan loolu xasru la wala xasru ndax mubtada su nekkee maarifa xabaar ñëw di maarifa kooku takk la bi max naa ñooñ rekk ñoo texe kenn man da texe te màggalo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de moo tax mu wax ne fa ulaayika humul muflihun ba pare ñaari takk la ko def waaw maxrifaal na mubtada maxrifaal xabar ba pare indi damiru fasal muy muy hum te damiru fasal itam ci adawaatul xasri la bokk kon daal takk na ko ak ñaari boom nga xam ne kenn mënul cee dugg te bokkoo ci de kenn man te taxe te màggaloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag loolu nag muy gàmmo rek ñi di gàmmo dañ déggul wax rek ndax ba gàmm daf da waxi olof rek waaye li muy firi muy màggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi baar yi dañu xuutee waaye maanaa yi benn la waaw maanaam baari yi mën nañoo wuutee waaye maanaan yëpp ñoom ñu bokk maanaan yëpp ñu bokk bu ñu la ijlis ak ñu ne la toogal baat yi wuutee nañ waaye maanaa yi benn la ijlis muy toogal waaye toogal itam muy toogal rek kon nag màggal yonent bi ak gàmmo yëpp benn la kon yëpp la yàlla santaane wax nañ ñu ko def ñoom rek ñoo taxe te yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla màggal na ko màggal goo xam ne màggaleexut ko kenn kenn kenn wax ne nañ ko màggal benn bés yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam dafa faatu ca makka doomam bu góor waaw musrikiina yi wala